nga xamante ni mag ñi ñoo ko ko jox mu yore ko ni mu ko yoree yàlla na ko yàlla may mu yeggale mébét yi mu ci am yépp te nu duggaale ci biir ndamam yabal na nu tey nu ànd ak sëriñ Habib bu Seydi Mouhamadul Mansour yebal na nu nu ànd ak sëriñ Habib bosu boppam yebal na nu nu ànd ak Abdul Hamid sunu mag sëriñ kër si Cissé jiite nu nu àndandoo ak comité d'organisation bi nga xamante ni maam Ousmane Samb mooy ki ko jiite pour ñëw wuy si woote bi nga xamante ni wooteem la àndandoo ak chef de service yi nga xamante ni ñoo njëkke ca Tivaouane mu di chef de service départemental ya fa nekk àndandoo ak sunu gouverneur tey ci CRD bi nga xamante ni ñaare moo nekk yoon wi nga xamante ni ci lañuy jaar balaa nuy yegsi ba ca Dakar pour waxtaanee lu sabab wàccaayu gàmmu Tiwaawan gàmmu Tiwaawan ku ne xam na ni bokk na ci événement phare yi nga xamante ni réew mi def na ko seen bés ndax ki ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa ki mu doon nga xamante ni mooy gën ji mbindeef ki ko tànn mu di borom bi subhaanahu wa taala joxeñ ko mbindeefu doomu aadama yépp pour que moom mu war a ñëw nekk tànnéef bi gën ci yoon wi gën jox ko li mu ko jox mu di ko saytu ba liggéey li mu liggéey lépp édition bii nga xamante ni nag moom la ñuy def mooy cent vingt deuxième édition bi nga xamante ni téeméeri at ak ñaar fukk ak ñaar ñu ngi ko àndandoo séq ko ak sunuy kilifa ba tey yàlla dogal mu nekk cent vingt deuxième édition nu àndandoo nag ak chef de service yi àndandoo ak yéene xalifa bi àndandoo ak ñaanam àndandoo ak mbooleem koo xamante ni jullit nga te bokk ci lii yàlla dogal mu taamu tem tem ba mu tënk ko ci baat bi nga xamante ni moom la wax ni yenent bi sallallahu alayhi wa mooy ki nga xamante ni moo nuy may ci jëfam ci jàngaleem ci liggéeyam ci tàggatam ci yoonu yaram moo nuy may nu mën caa dëgg gindi sunuy njaboot teg leen ci yoon wu jub di yoonu mbaax boobu tam moom la taamu wax ni nañu ko wax njaboot yi wax ni itam ci la bëgg ñuy intervenir yëpp njubu yonent bi mooy yoon wi mu taamu te mooy yoon wi gën te gën a mat pour ñu tënk ci njaboot gi gindi leen teg leen ci yoon yar leen wan leen ni mbaaxu yàllaa ngi nii bi hadyi rasul nu wajjihul ajal ci njibu yonent bi jàngaleem yoonam tegtalam ci la ñuy dëgg pour gindi sunuy njaboot teg leen ci yoonu yiw yoonu mbaax yoonu yar boobu te moom la taamu ni nañu ko jiital li ci des nag ñàkkul yeneeni sous-thème yu ci ànd communication yi am incha allah balaa ñu cay yàgg yegg ñi ko yor danañ ko tënk muy programme bu yaatu wax ko mbokki taalibe yi mbokki jullit yi mbokki senegal mbokki àdduna bi pour que bu ñu cee yeggee kenn ku ne bàyyi ko xel mu woo nag képp koo xamante ni am nga cëslaay ci biir ndax kuy jullit am nga ci cëslaay kuy sénégalais am nga ci cëslaay kuy nit rekk ci li gën a mat am nga ci cëslaay waaye rawatina nun ñi nga xamante ni ñoo di njabootam di mbokki taalibe yi rawatina nag kilifa yi nga xamante ni ñooy kilifa yi ŋànk réew mii di Sénégal jiital ci son excellence le président Macky Sall toftal ci gouvernement am le premier ministre Amadou Ba toftal ci sunu ministre communauté mu di le ministre Antoine Diome ñaanal leen yàlla yàlla leen yàlla may tawféex te yeggale leen seen mébét ci réew mi te gunge leen ak ndamam nu àndandoo rek xalifa bi wax ni nañu woo ku ci am wàll pour nga ñëw xam ni incha allah bu weer yu feeñee mawlid bi danañ tàmbali ca burdiya fukki fan ya ca noppalu ba ca bis ba mu nekk ay fan yoo xamante ni ah senegal ñoo ko moom àdduna bi ñoo ko moom waaye lislaam bi ñoo ko moom waaye tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tijani yi ñoo ko moom mu woo leen pour ñu ñëw àndandoo ca loola lañu ñu waxtaanee ba ku nekk feeñal ci yéeneem li ñu indi woon di ay point ci wàllu euh, service yi ko ŋànk yaakaar naa ni ku ci ne joxe nga ca saw laaj ku ci nekkit joxe nga ca sa yéene feeñal nga volonté bu nu mën a may ñu yegg ci loolu nag bu amee comité bi xalifa bi dana leen yebal pour nu feeñal seen cant moom ak i rakkam ak njaboot gi yépp ñaanal leen yàlla wuy si gi ngeen ko wuy ci wooteem bi yàlla mi am mbaax yàlla na leen ko delloosil mu nekk yokkute ci yéen ci wàllu maqaama nekk itam sutura bu sax ak yéen nekk wér nekk wér la ci seeni njaboot yàlla jàppale leen ba li leen réew mi teg ngeen war ko tegoo taxaw ko yàlla defal leen ca ndam lu kawe seen jot hmm. ah lii daal mooy li mënul ñàkk nu wax ko ci yéene yi sëriñ Habib du ñàkk sax dana ci dolli waaye lii la nuy dugal ci sunu dayoog njaboot ñaanal ko yàlla moom ak communauté communauté comité bi waaye ñaanal sunu ñaar ñi nga xamante ni ci région de Thiès muy le gouverneur ci département bu Tivaouane muy le préfet wax dëgg yàlla xalifa bi mu ngi feeñal mbégteem ci ñoom ndax lépp lu mu bëgg lépp lu ñu yëg ni bëgg-bëggam la def nañ ca ba def ca lu leen ca war lu leen warul nit nag bu defee li ko war ñu sant ko kon bu jéggee ca la ko war te waru ko woon war nañ ko gën a sant yal na yàlla fayal nu leen